jërë ngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen boutique solution del seet na ni nga xam ne noonu lañ koy amalee euh, actualité bu mën a xew ci réew mi xel yëpp dafay dem ci Alaaji Sanjoogu Mbeng ak Soaybu Jóob ci waxtaan yi ñuy faral di indi ci li nga xam ne mooy actualité yooyu le waaye boutique solution itamit xaw na raar tuuti ay jëmmi jamono lépp rek nekkoon ci liggéey boo xam ne dara génn ci li nga xam ne moom la ñuy def tey nag dinañ jël siwaat incha allah waxtaan ak yéen ci li nga xam ne mooy actualité yi fi jote xew gannaaw ba ñu présenté leen garab yi tax ngeen di gis suñu jataay bi la ndax euh, li nga xam ne mooy boutique solution moo mooy jataay bi mi ngi en face wal fajri euh, bala ngaa ñëw comme ni ñu koy waxee nga woote yéen ñi nekk bitim réew jaratul ngeen di ñëw ba Sénégal dinañ leen jox léegi numéro téléphone yi nga xam ni ña fiite bitim réew mën nañoo euh, jaar foofu leen hémorroïde bu tëwër siti bu tëwër góor gu néew kàttan ci wàllu lal ba soxna si di la yeb wala mu lay ciipatu wala sax boo yeewoo ndékk la naaj yooyu yëpp am na fii ci boutique solution bu fekkee jigéen nga xam dafa bëgg ans wala sax ay ween loolu i tamit am na fii am na ku may xeewlu sama wet waaye sama yoon nekku ci loolu mooy faral di am ci kër yi ndax ñaari bu uh, tubay ja dëgërul ci patu la wala di la gaaruwaale ci biir néeg bi wala ci kaw lal bi dafay yomb foto uh, bii ngeen di seen suñu ginnaaw ñaar ñi defe naa ni démb fës nañ ci réseaux sociaux yi muy Barthélémy Diaz ak ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko ci li nga xam ne mooy gunge bi mu ko gungee démb ak ni euh, nga xam ne moo xew ci journée démb bi yëpp dañ ko waxtaanee tey ak Alaaji Sanjogu Mbeng lan la ci état bu Sénégal war a tiire ak it euh, opposition bi lan lañ ci gagné démb loolu daan ci ñëw euh, xaas ci suñu ginnaaw moom it gis ngeen ko Ablaye Diop xaas di borom këru sumbulu bàcc li am soxna su génn ne xaas dafa takk takk suuf loolu itamit dinañ ci def beneen leeral lan moo ci euh, suñu xalaat lan lañ ciy leeral bu ko defee ñu daal di ñëw ci waxtaan wi xaritu Serigne Sidi baa ngi nii moom Alaaji Sanjoogu Mbeng euh, moom Serigne Sidi mu Serigne Abdoul Ahad Mbacke maa ngi lay nuyooti. son yi bu ñu ngi lay fay. Mm. di la ziar di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontante di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñi ngi ñuy teewlu. Mm-hmm. saa yiñ toogee fii ci jotaayu solution. Mm-hmm. ngir fas yéene joxe sunu xalaat ci réew mi. Mm-hmm. waaye ñi nga xamante ni bii. ñoo ñu taam ñu leen di nuyu waaye ginnaaw bu ñu demee tuubaa nag ba nuyu xarit euh, général de Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér waaye di nuyu nag sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad di ko ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñu ngi koy ziyaar bu wér a wér Mbacke di wax ni sooy bu di gërëm ñi nga xamante ne bi ñooy collaborateurs yi nga xam ni ñoo nekk ci àddina wërngal këpp mhm. macha allah di liggéey liggéey bu am solo ku ci mhm. mel ni soxna ummi mhm. ñi ngi koy nuyu di nuyu tamit Mariane di nuyu Ibrahima di nuyu bu baax ki nga xam ne moom la ñuy wax euh, soxna Nabu di nuyu Yaya ak ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax Basiiru Basiiru ñu ngi koy nuyu di am ci ñoom ñëpp mbégte ak kontaante ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ànd ko ak boutique bu mag bi nga xam ne moom la ñuy wax boutique solution. Mm-hmm. muy lu am solo. Mm-hmm. di gërëm it ñi nga xam ni ñi ngi ñuy defal publicité fu ñu toll. Mm-hmm. di wër di wax sunuy garab baax yi nga xam ni baax na ko. ñooñu amuñu seen fay. parce que mënoon nañoo jënd rek yam ci faju noppi. waaye faju ba pare digal ko say mbokk lu baax. vraiment yombul. donc ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. ci loolu nga xamante ni bii vraiment ñi ngi koy def. ñu ngi leen di sant te leen gërëm. macha allah jërëjëf comme ni ko Alaaji limee bu dee fële ca France soxna ummi ma nga fa kon yéen ñi féete fële ca euh, France euh, moo fa nekk kon yéen ñi féete France jëratul ngeen di ñëw ci Sénégal France ak li ko wër mën ngeen a contacter soxna ummi ummi mi ngi noonu. soxna Marianne waaw numéro mi ngi noonu. bu fekkee ni fële ca Italie Dubaï ak ca Maroc. soxna ummi ak sëriñ ibrahima ñoom su ngeen jokkoo ñoom ci numéro yooyu di affiché di ngeen leen jot bu fekkee fële ca Espagne la sëriñ Basiru Sàmb ak sëriñ Modou Wilane ñoo fa nekk ñoom it di nga leen mën a jot foofu le ca Amérique ngeen jot fa soxna Seynabou Gaye sénégalais siste ak sëriñ Papa Gaye ñoom di nga leen fa jot bu dee fii ci Gambie suñu dëkkandoo yi Yaya Bangoura moo fa nekk di leen mën a jot bu dee fii ci Sénégal 78 426 66 77 wala ci 75 400 wala 630 50 50 loolu yi mooy numéro yi nga xam ni ku ca jaar mooy euh, agsi ci boutique solution alaaji saa bala ñoo ñëw ci actualité yi comme ñu fàttali gaay rek semaine yi génn sénégalais yi gisuñu lu xewoon ak lu taxoon waaw li xewoon lenn la li ci njëkk mooy euh, boutique bi nee naa leen dafa jënd ab ay publicité ñi nga xam ne ñi ngi suivre même bu ñu gisut nii ñu jàkkaar ñoom ñi ngi ñuy déglu chaque jours ci rajo bi mm. que ñu fay amal tamit li nga xam ne mooy sponsoring boo xam ne sponsorisé nañ ko ci kii bi rajo bi. Mhm. mais <clears throat> loolu tamit du tax ñu bàyyi lii nga xamante ni bii moom la ñuy def. Mhm. ak tamit euh, barab bi nga xamante ni bii. Mhm. fa la boutique bi war ne. nga xam ni jamono juñ toll ni daanaka pare na li ci des rek mooy incha allah ci kanam tuuti yéen ñëpp di ngeen ko gis xam ni euh, lii nga xam ni moom la ñuy am kat. yéen la du ñun. parce que yéen ñi taamu boutique bi bu boutique bi demee ba mën a def lenn mhm. mën a am makkaan boo xam ni daf fay nekk donc dañ leen koy sant di leen ko gërëm mhm. donte nag yéen ak ñuy sant di ñu gërëm euh, parce que bu ngeen ñu wóoluwutoon mhm. jox ñu confiance peut-être que ni euh, lu mel noonu duñu ko ñeme wa ilaa duñ ci xalaat ngir euh, nefa yooyu yëpp nag ak préparation beeg tuuxu beeg yooyu bokkoon na ci li nga xam ni sabab na euh, gëj a gise gi mhm. waaye du sunu coobare incha allahu rabbi bu soobee sunu borom ni nga xam ni noonu la émission solution doon amee mhm. dina continuer di am yayaa wax na ma ko ne ma ah war ngeen a ñëwaat de ci mhm. kii bi parce que waxtaan bi ngeen di waxtaan ak ñun ci internet bi gars yi dañ koy xaar vraiment gars yi dañ koy xaar te am na solo lool ma ne ko loolu moom nekkut lu ñuy xalaata ba parce que mbir la moo xamante ni faaw muy am parce que je sais que ni euh, sénégalais yi ñu ngi ñu ciy xaar. donc tamit di leen wax fu ñu toll rek. Mhm. Euh, ci boutique bi fu mu toll ñoom ñëpp ñu koy xamandoo di xam ni jóge na ci étape sangam mi ngi ci étape sangam jóge na mi ngi ci étape mhm. di gërëm nag ñi nga xam ni nag ñooy euh, ñi ñuy jàppale ci liggéey bi. Mhm. parce que son bu. waaw liy doon appel. attanuñu ko woon bu ñu ko bëggoon a ngar daajoo. solution bi ñu doon wax doon nañ am problème. Mhm. parce que dootuñu mën a. dañuy mujj nekk yenn mbir mi problème la ñuy mujj doon. <laughs> mais la fait que nag boo woo xoolee woo ñii woo Marianne. ñii woo Soxna Ummi ñii woo Basiru mhm. ñii woo Ibrahima mhm. ñii woo euh, Seynabu mhm. ñii woo Yaya Bangoura yooyu vraiment dimbali nañu bu baax a baax baax ñi ngi leen di sant ñoom tamit bu baax di leen gërëm macha allah voilà jërëjëf alaaji Sanjoogu kon mi ngi noonu dinañ jël siwaat léegi ci boutique bi tamit euh, alaaji dama ko fàtte woon sax bi may présenté li nga xam ne mooy actualité yi mbirum Bougane Gueye Dany euh, weesu na ci suñu gannaaw boobu ñu ngi woon ci préparation yi ak yeneen yi ni mel Bougane dañoo rejeté li nga xam ne moom mooy candidature am fii la ci Dakar Dakar xam naa jombul nañ si def benn flash rek jàll nan nga gisee mbiri bi mu xewee ak it ndax yaa jaakaaroon nga lii am am Bougane préfet daal di koy euh, kii rejeté. waaw xam nga man de vraiment euh, damay ñaawlu loolu. damay ñaawlu li nga xamante ni bi euh, gis nañ ko. ci yëf yi ni muy doxee. mel ni dañ naan nañ leen dem làmb ja waaye kat dañuy tànn ñi ñuy bëreel. loolu jaaduwul ni yëf yi doxee man dama nekk loo xam ne bii vraiment son bi dama ko ñaawlu trop. Mhm. parce que muy buggaan muy keneen ak keneen képp koo xam ne soxla nga. waruñu ñëw jéem a kale. ci kale yoo xamante ne bi da lay wóor ne la. kale yi ci ay normes lañ ko. ay non non loolu la ñuy wax ci ay normes la <laughs> mais normes yooyu est-ce que <laughs> ay ay ay normes la ñoom ñooy wax loolu rek lépp lu ñu wax dinañ ko jéem a solal tubéy mhm. mais mënuñu nangu. ñoo xamante ni bi xam nañ élection yàgg a dem élection xam nga tey buggaan dañ naan par manque d'expérience dañuy wax mhm. bu ñu waxee ne boo ñi ñi kalee tamit euh, ci waa Pastef dañ naan la par manque d'expérience mais dafa am ñoo xam ni yàgg nañoo dem élection xam yëf yi ni koy defee ñu bloqué leen waaw donc loolu fan lañ ko teg mhm. donc yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni ay mbiru tappale manque d'expérience waaw dañ naan boo nit ñuy déposé amul du question ay manque d'expérience maanaam damay bëree mhm. wóoluwuma man mbër mi ma joxe mi ma tàggat ba noppi naa jéem a kal ñële ba ñële ñoom duñ mën a ñëw bu ko defee ma nekk un seul leader dans bu ñu demee ne Thiès taale si laa fa nekk ak Yankhoba Diattara xam nga loolu mooy yabaate quoi vraiment ñëpp di APR. mais loolu mooy la loolu moom bëri amul xam nga loolu ban laam combat fa c'est dafa am yoo xam ne son yi dañoo nekk ci réew moo xam ni. vraiment jalgati yi dafa bari. lii laay war a sori administration beeg kii yeeg yooyu nañ génn seen loxo ci wàllu politique. fexe. liggéey la nga xam ni moom lañ leen sant. Mhm. bu leen kenn manipuler. mais bu ñu leen di téye di leen manipuler mais réew maa ngi bëgg a yàqu ndax politique. Mhm. foo dugg ñu bëgg ko politiser dugal fu ne politique loolu baaxul. baaxul te loolu nag fi mu toll nii ci lañ ne. macha allah te jaaduwul. macha allah voilà. jërëjëf alaaji am na solo ñu daal di koy jëfal ci lu mel noonu la bala ñoo dem ci li xew-xew bi amoon démb euh, démb dañoo yeewu barki démb la ba léegi sax mu ngi tasaaroo ci réseaux sociaux yi ñu ni daal Abdoulaye Diop Khass dafa takk takk suuf. Euh, bi mu amee nag ñoo gisu ko comme ñëpp xam naa jombul ab jàngat dana ci am koo xam ne bi muy takk soxnaam ak léegi yàggul nee nañu soxna sa kat du yàgg ak moom ndax jàppoon lii xew nii am na lu mën a yëngal ci xaas bu doon nii lu am la wala est-ce que jàpp nga ne bu amoon it jar na wax ci ab internet xam nga nit ñi dañoo lijjantee tout seen problème ba topp ci problème mu jàmbur mhm. man c'est que loolu mooy sama problème yow loolu maanaam nit ñi nekkatuñ ci seeni mbir mais ci ay mbiru jàmbur rek la ñuy xëy di ne. waaw nettaliwaat ma sëñ Cheikh. ak la mu nettali <laughs> mooy la nga xamante ni bi rek son bu. waaw mooy waa ji ñëwee rek ne ko mbindaan mi ëmb na. mu ne ko affaire ab la. waaw mu ne ko xam nga ni damay génn kër gi. mu ne ko kooku sa affaire la. dana ko yow yaa ko ëmbal. mu ne ko sama affaire mu ne ko damay génn kër gi. mu ne ko loolu sa affaire la. ku ne am na affaire mm-hmm. donc Abdoulaye jóob xaas takk na takk suuf kam ko takk takk suuf nangu na ko lu ci yoonu ñeneen bu fekkente ni bii lu am la soxla wuta nekk di médiatiser ko wax naan takk na takk suuf ak takku takk suuf lan la ci nit ki di gañe après que diw takk na takk suuf ak takku takk suuf mm-hmm. lan lañ ciy gañe ah donc yooyu vraiment man daal nekk na loo xamante ni bii daal mm-hmm. ñaari magum jëmm buñ demee ba d'accord. ñi koy def loo jàpp ne ko takk ci suuf nga ne ko d'accord naa nga takk ma ci suuf kenn du yëg. takkante nañ bu préféré nañ ne duñ ko siiwal seen mbir la ëllëg si biir problème bu am seen mbiri bopp la mais nag taxaw ci internet bi way diw takk na takk suuf def na lii def na lii def après ñun lu ci sunu yoon. takk suufu jàmbur daal suñu yoon nekku non sunu yoon nekku ci son bi parce mm. que àddina. dafa am nit ku ne rek danga war a lijjanti sa mbiru bopp comme li nga xam ne moom laa la expliqué saa ci li Serigne Cheikh wax. Mhm. noonu rek mooy li nga xamante ni bii. Mhm. noonu mooy doxal mbir yi. Mhm. waaye ay diw way takk na takk suuf. def na li def na ki mu koy takkal nangu na ko. moom mi takk ndax bëgg na ko. donc où est problème bu fekkente ne bi lu am la. ah di mamaaka nag moom ñu ngi naan amut ak am na donc mais dañuy nekk ci ay détails quoi. si te mbiru détails yooyu nag lañ war a jël. féetale ko fële. léegi am na koo xam ne mi ngi ñuy seetaan mu ni déggal saa mi ngi naan nañ maandu ci problème bee te fu mu fu mu xëyee nekk ci problème mu président Macky Sall. est-ce que ñaar bokk na <laughs> président Macky Sall. dafa yor sunu mbir. waaw xam nga ki yor sunuy mbir. kooku dañoo war di lijjanti ay mbiram. waaw balaa muy jaxase sunuy mbir parce que bu ñu lijjantiwut ay mbiram rek. Mhm. boo deful ndànk dina dugal mbiram ak sunuy mbir ci pax. te bu boobaa duñu am fu ñu koy waxee. Ah. kon daa yor suñuy mbir. waaw ki yor képp koo xam ni xam nga tey. maanaam koo xam ni privé la ne ci ay yeneen domaine am mhm. bokkut ak ki nga xamante ni dañoo yëkkati lépp jox mhm. maanaam askan wi ko fal faaw ñu koy saytu mhm. moo tax nit ñi bokkuñu waaw président Macky Sall ba nekk ci assemblée nationale ak ki nga xam dañoo yëkkati Eh, société réew mi yëkkati ko teg ko ci seeni loxo mhm. ñooñu dañ leen a war di saytu mhm. di lijjanti seeni mbir d'accord voilà ndax dañoo yor suñuy mbir waaw dañoo yor suñuy kon mi ngi noonu ku yor suñuy mbir ñu lijjanti say mbir kon mbiri Ablaye Diop xaas ak soxna soos ñu koy tuumaal te biñ demee ba ci biir sax moom nday mbil gi jot nañ ko waaye daal li ñu tegoon suñu loxo mooy yëfee moom dara amu ca xëy na ay manipulation la ak yeneen yu ne aju alaaji bala ñoo ñëw ci eh, la xawoon démb démb nag Euh, wàllu ange ak defar ween siti bi jombul dina am loo ci leeral parce que am na euh, nu ñu daan joxe mbir yi am na lu ci bees di nga ko leeral bu ñu paree nag ñëw ñëw ci ange yi nga xam ni sénégalais yi ko jël di ko jox seeni soxna ñoo dem ba kontaan ba nar a photo seen i ange jabar duñu ko yónnee nee nañ nag lool moom jaru ko <laughs> waaw nañu bégg rek te béggee <laughs> am na ku waxoon Assane Besere ne ko euh, soxnaam saa ngi tiitaru di dox di jaagar jaagar di ko mbiic waaw Eh, ne ko sax dinaa ko photo bu ko mënoon naa ko photo waaye ay kilifa génn ma ne ko waaw loolu moom bu mu yegg si ko donc euh, ange yi moom sa ange mbiru soxna moom hmm. say ange waaw waaw donc euh, nayam ci yow rek comme que kontaan nga daal alhamdulilah uh-huh. voilà lu jëm ci wàllu siti bi mm-hmm. euh, di wax ni léegi bu ngeen gisee ni ñu leen koy joxee mm-hmm. sachet la muy même site bi la nag amut site euh, boo xamante ne bi dañoo jëlaat beneen non même site bi la. Mm-hmm. mais ci sachet bi lay nekk et puis envoyé nañ leen ci audio boo xamante ni bi benn yoon nga koy defar. Mm-hmm. donc loolu nekk loo xamante ni bi tamit. Mm-hmm. vraiment euh, lu am solo la. donc pour lekk leeral ko ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy clients yi soog ñi nga xamante ni bi jëndoon nañ mhm. ba war a jëndaat di mhm. leen ko leeralal parce que tamit nit ñi bu fekkente ni da nga nekk ak ñoom mhm. dee leen wax loo xamante ni bi eh, lu leer la donc benn yoon nga koy def bu fekkente ni bi nag yow sa la plupart ñi nga xamante ni bi def nañ ko benn yoon dañuy tàggook seen siti yi parfois nag mu am koo xam ni dina ko def daal de setan waaye ji ci ëpp bu ñu ko defee mm. benn yoon sunu borom da ci def jàmm mm-hmm. ñu tàggali ko li nga xam ne moom la ñuy wax siti xam nga man loolu man tey mooy laaj nee naa leen rusuma toog fenn di ko wax mm-hmm. jox naa ko man sama ku bokk ci man mm-hmm. waaye ba ma ko joxee defe naa ne yéccee des sax ba léegi fa la ko bàyyi waa laa laataa moo jeexal wér na voilà loolu de lu am solo donc di wax ni daal garab yi moom macha allah parce que à chaque fois ñi nga xamante ne bii tamit ñooy ñi ñuy collaborer dañuy envoyé ay audio yoo xamante ne bi mbégte lañ ci am di rafetlu bu baax a baax mi nga xamante ni bii noonu la garab yi mel. Mhm. donc garab yi boo <laughs> day faj. waaw du ay garabu du duy mbiru tappale day faj waaw parce que jàpp naa ni ñi nga xamante ni bii tey ñi ngi jaay dugg ci mbirum hémorroïde ak yooyu ñooñu sax ñoom ñooñu waroon a ñëw di jënd si ci ñun mhm. di jaay la waaw wala kuy jaay si di ñëw ci ñun di jënd si di jaay mhm. parce que li ñu yor day faj te li ñu yéene Sénégalais yi mooy wér-gu-yaram macha allah kon mi ngi noonu yéen ñu ko soxla nag numéro téléphone yaa ngi noonu di défilé ña féete bitim réew yéen a ngi gis numéro téléphone yaa noonu ñu ne ci Sénégal itamit numéro téléphone baa ngi noonu alaaji ñu ñëw nag ci li xewoon ginnaaw wuy Barthélemy Dias te ñu mujj ko renvoyé ba le premier décembre incha allah Barth nag nee na woon du wuy jiwaat xëy na jombul danga nga ci ñëw ak jàngat Ousmane Sonko kàddu yi mu yëkkati ci président Sall itamit jombul da nga ci ñëw ci ab euh, jàngat euh, muy def daal euh, jàngat bu bu yaatu ci xewoon démb. Euh, li nga xamante ne bi xew na ci pénc mi muy convocation bi ñu convoqué Barthélémy Diaz mu génn ginnaaw bi nga xam ne Ousmane Sonko waxoon na ni gars yi nañ jóg sénégalais yi aussi tamit daal di jóg wane seen bopp loolu nekk loo xam ne lu am solo la Barthélémy taxaw na wax ni dootut wuy ji waaw waaye bi mu ko waxee tamit Sonko nee na ko déet da ngaa nekk léegi ci coalition moomatoo sa bopp. Mhm. donc wax na loolu ci yaram wu tàng. Mhm. daal dee wax li muy wax. mais je pense que ni après bi mu dégluwaate bu dégluwaatee ñi nga xam ne ñoom la àndal. Mhm. ñooñu du ñu def rek lu xelal ko yoon wi nga xam ni mooy bi gën. ci li nga xamante ni bii moom mooy euh, li mu war a def. mais pour ñëw ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko discours am bi nga xamante ni bii moom la def waaw. man damay jàpp ni Ousmane Sonko mooy mm. ki gën ci Macky Sall. ah bon waaw Ousmane Macky dafa war a sant ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko bu baax a baax parce que li tax mu war ko sant. Mm-hmm. jàpp naa ni mooy ki koy gindi di ko wan yoon. parce que li mu wax. Mm-hmm. wax la joo xam ne wax ju am solo la. Mm-hmm. mooy que ni jàmm ji mi ngi ci say loxo sunu borom say loxo la ko teg. yow la ñu jox réew mi. kon nag des ta ci yow. ngir jàmm am ci réew mi maanaam jox na ko cëram. wan ko ne ko nag ci yow la des ngir jàmm am ci réew mi wan ko ne ko ñi lay bëmax ak a mhm. ñooñu seen njariñi bopp doo nga tax ñu jóg parce que la preuve ña doon wax mhm. démb ba mbir yi commencé dégénérer mhm. gisoo leen ci mbedd mi gisoo fa seen i mbokk donc te président Macky Sall dama koy xamal ne ko mm, du mag du mag waaw du mag du mag bu ñu ko waxee du comme ay ab laay waa ak ay Alpha Condé xale la mhm. donc war na mën a jóge fii mhm. gérer réew mi ba jóge fi mhm. wëlbatiku di dund ci jàmm dégg la te loolu nag li ko koy may du ñii sës ci moom liñ koy wax mais lii ko Ousmane ko di wax moo ko koy may mais dama cee dégg baat bu doy waar nga baal ma muy su indee jàmm ju bari lu mu bari bari fekk fi jàmm ju ko ëpp waaye su indee aw ayit fekk ko fi waaw loolu mooy. te Macky la yor doole ji alaaji loolu. tuuti euh, Macky Sall yorut doole ji askan wi ñoo yor doole ji. waaw ah waaw non doole ji. askan wi ñoo yor doole ji. Mm-hmm. askan amul lu mën a xeex ak ko askan. Mm-hmm. loolu mooy li nga xam ni mooy li leer. xam nga li romb. Mm-hmm. dañ doon wax naan du Sonko. man dama la wax ne dama mësa gëm ni Ousmane Sonko mi ñu téye moo waral. li romb romb mu mois de juin bi. mel na mu mel. parce que bu du toon ak Ousmane Sonko loolu du am. mars ma mois de mars bi waaw mm-hmm. mois de mars mm-hmm. bu du toon ak Ousmane ko loolu du am mm-hmm. mais gis nga politique yi dañ ne wéy loolu jiiñ ko ay koronaak lu nañu wax ne wéy lii moo tax yooyu yëpp mooy c'est pour bañ a wax waa rek ne ko mm. lii amoo ko parce que waa bi mu génnee dañ moom euh, comprendre naa leen ndax da ngeen a xiif da ngeen ah, dara na wa ilaa mën na comprendre sax di jéem a naxu ah, mais li am solo <laughs> mooy nit ki li ko yàlla may nangul ko ko Ousmane Sonko ndaw ñi dañ koo jox bopp am ci moom yaakaar bu rëy. Mhm. loolu mooy liy dëgg. que ni ñoom ñu wax ko xam nañ ni mooy dëgg. ñu ñàkk ko wax xam nañ ni mooy dëgg lii ñeneen ñi ko wër di ko wax. Mhm. wóor na yàlla gëmuñu ko. Mhm. ñoom ñooñu ku ci wéet xam ni. Ousmane Sonko ndaw ñi jox nañ ko bopp. d'accord te itam xam nañ ni fépp foo xamante ni fii jóg na yëkkati ay kàddu am noo xam ni mi noonu lay doxalee. mën na demee noonu mais bëgg jàmm bokk na ci li tax bi ñu ko teewee. bàyyi ko mu ñëw def discours bu responsable. Mhm. waxul ne nañ leen jëli ji Macky Sall. ci pale bi. te boobu bu ko waxoon ndaw ñi loolu lañ doon déglu. Mhm. mais waxu ko ne bàyyi leen ko mu gouverner. Mhm. bàyyi leen ko mu yeggale mandam ñu ànd ak moom. ba ñu yegg fa nga xamante ni fii fa la jeexalee ba mu terminer mandaam ñu def ay élection loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati. d'accord donc loolu kàddu jàmm la donc mi ngi koy woo ci jàmm nit ñi dañuy wax ne day yee fitna mais man vraiment. Mhm. dama jàpp ne day fay fitna. parce que injustice ak yenn affaires yi loolu mooy yee na d'accord nit ñi nag du ñu def lu mel noonu nag ba noppi nag am ñuy xeex loolu ngir loolu kii nga ne ki koy xeex. Mm. mooy yee fitna. macha allah euh, mu mel ni ci biir kàddoom ma dégg ci beneen lu Ousmane Sonko souligné mooy euh, jamonoy Abdou Diouf daana tëj Ablaye Wade waaye élection mosu koo fekk ci kaso. waaw jamonoy Ablaye Wade daana tëj ay opposants yoo xam ne ay menaces la woon ci saison bi mais daawul leen ci euh, kaso bi élection mu mel ni président Sall rek la wax ne ci régime am la ñu gisee. ay adversaires yoo xam ne yu ko mën a sonal lañ te balaa élection ñëw mu sacrifier leen waaw loolu moom xam nga li mu wax mooy li ñu gis Ablaye Wade yàgg na fee génn mhm. dal ci kaw ab juuf ab Abdou juuf yàgg na koo jàpp mais Ablaye Wade tamit bu ko Abdou Diouf masaane jàppit mhm. euh, Abdou Diouf du gouverner lu mu xam waaw waaw parce que <laughs> tamit euh, Ablaye Wade tamit euh. nii Ousmane Sonko am mhm. Ablaye Wade amoon na lu ni mel jàpp naa ni nag man fi mu toll nii. Euh, Abdoulaye Wade la mu amoon. parce que 88. Euh, nguur gaa ngi woon ci mbedd bi. waaw donc Abdoulaye Wade jamono yooyu. Abdou Diouf bi mu koy tàllal loxo naan ko na ñëw ñoo bokk suñu réew. loolu di baab. c'est parce que xamoon na ni Abdoulaye Wade mën naa nangu nguuram. Mhm. mais la mu waxoon muy du jaar ci ay. cadavre di dugg ci kii bi sàmm na la nga xamante ni bi mooy mbir moomu mhm. donc opposition bi gars yi dañ Abdoulaye Wade wax tam nañ ko dëmm fu ne mhm. wax nañ ko ne bu yoree réew mi musiba am buggul jàmm buggul jàmm Abdoulaye Wade ko ko gën a bëgg jàmm bi mu yoree réew mi ban ay nga ko gis mu def jàmm lan nga ko gis mu def ay arrière ñu naan reculer na def na lii lépp jàmm tax mu di ko def li mu doon baale moom waajur ko baale li mu doon def kan moo ko kii donc tamit pour man loolu rek mooy li nga xam ne moom la ñu wax Ousmane Sonko nii mhm. ñi ngi koy diaboliser mais ñi koy diaboliser ñëpp moo leen gën a bëgg jàmm parce que ñële di ko diaboliser ñooñ ci seen jëm bopp ñooy digal kii ci lii nga xamante ni bi mooy lii am mm-hmm. bu fekkee dañuy wax ne droit moom moo may nit ñi ñu mars ñoo may nit ñi ñu lii ñoo may nit ñi ñu laa te loolu loi boobu ko fi teg moom moo teg président Macky Sall fa mu nekk bañ naan ko président Macky Sall bu fa loi boobu jóge woon rek man ak moo ma yem macha allah buñ dajee fii ci kii bi boo ma boo defu ndànk ma yor sama saret baare otoom du ma mm. mënal dara waaw ma ne ko ñoo bokk kii bi parce que loi donc ko may li nga xamante ne bii moom la am donc nag loi yooyu nañ ko sàmm fexe wekk sunu justice parce que réew mu amul justice sooy bu uh-huh. musiba la te sunu réew mi uh-huh. jamono jiñ toll ni nit ñi dañoo wóoloo tut yoon war nañu liggéey lu rëy nag pour nit ñu joxaat confiance justice lu ko moy uh-huh. réew mi ci pëccëxoo la jëm macha allah ñaari question ñu tàggoo muy euh, président Macky Sall ak nguuram ak opposition bi kenn ku ci nekk li xewoon démb loo ci gagné maanaam ma njëkk ci opposition bi lu ñu gagné ci journée démb bi waaw opposition bi wane nañ ni hmm. la defoon mois de Euh, mars hmm. mën nañ ko mënaat nañ ko waaw mën nañ ko wane nañ ko d'accord donc loolu lecture boobu hmm. euh, nguur gi war na ko def d'accord teyit jéem a xoolaat nguur gi tamit war na jéem a xoolaat moom it hmm. nan lay def ak opposition bi parce que Macky Sall suñu boroom a nanguwut li mu bëggoon dane woon devait rendre l'opposition à sa plus simple expression xaw ma maanaam nasaxal opposition ba daanako dootu daam waaye suñu boroom nanguwut loolu te na xam ni nag kenn du bëreek borom bi d'accord waaw nguur gi lu mu ci lu ci perte. li mu ci perte mooy <laughs> nguur gi kañ li ci perte kay. Hmm. gis nga ko parce que askan bi yëpp dañ ne nguur gi reculé na. waaw <laughs> parce que ñëwoon bu ñu jàppaloon waa reculé boobu te loolu mënoon na bañ a am. d'accord lool yëpp mënoon na bañ a am. macha allah c'est que fi mu toll nii euh, nguur dafa war a fexe liñ ñaan force restala ak yooyu yëpp. Hmm. dafa war a fexe ba ñu xam ni nguur gii kat. moo yore kàttan gi moo yore doole gi mhm. mais loolu yëpp nag li ko mën a may nguur mooy nguur gu jub tey jubal macha allah justice ba nekk ci yoon mhm. kii ya tegu ci yoon gis nga bu boobaa bi nga tey ji bu lépp nekkoon ci yoon Barthélemy bu génnee nga defee ne ñu ko kenn dina ko lool déedéet mais c'est parce que nit ñi dañoo tee seen xel a tee ci yoon mhm. moo tax nit ñi di génn ci mbedd mi loolu nag magistrat yi ba gaa yeb ko wala non ci yoon woowu la jaar parce que dañoo politiquer lépp fi toll nii boo deful ndànk. bañ yeb leen ceeb ko lañ jëm nguur gu ñu yeb. boo defu ndànk fu ñuy mujj mooy balaa ñuy def na laaj leen opposition bi ñu ko gisee balaa ñuy def dara parce que sinon mën nañoo marche. waaw ah, dëgg donc nguur dafa war a am kii quoi. macha allah dafa vraiment fi mu toll nii lii baaxut ci réew. macha allah baaxut ci. ay ci mbokk yi loolu la ñu indi woon tey boutique solution trois médicaments yi euh, muy hémorroïde siti ak kattan ak garabu ange ak euh, wàllu jekk-jekkal ween ak yeneen def yu ni mel.

ku ci woote te nekk bitim réew rek mën nga caa jot même garab yi nekk Sénégal moom ngeen di jot foofu la ci biti réew incha allah gërëm suñu partenaires yi gërëm nga xam ne alaaj ñoo yor suñu téléphone yi fii muy ñi nga xam ne ñoom lañ dénk liggéey bi mhm. euh, ci yar teggin gi ñu wuyoo client yi parce que kenn woowaguñu wax ne ñu kat seen xale yi ngi ñuy gëdd ko def yëf mhm. kon nag ñu ngi leen sant ñoom it gërëm la jox la dig daje ba beneen yoon incha allah lay jàll moo nekkoon ci caméra bi ak son bi Ablaye kii Abdou Top nekkoon ci montage bi jërë ngeen jëf mbokk yi